asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di leen ziar bu baax di leen dalal seen chaîne YouTube bi nekk benn Makhtar l'officiel léegi noonu lañ ko tuddee ah, tey nag incha allahu rabi moo ñëw indi leen secret bu jëm si wàllu nopp defar diggante neexal diggante diggante jëkkër ak jabar wala ñi nga xam ne dañuy bëggante tey boo xoolee loolu moo gën a fréquent moo gën a yomb pour nit nit ki ñu woo rek. daanaka si affaire yooyu la ñuy wax moo tax ñuy góorgóorlu di leen ko jox ay secret man lijjantiwuma nit ñi lu ñuy wax wala nangam man daal na nit ñi am jàmm na couple yi nekk si jàmm surtout ci ñun mbokk jigéen ñi sonn nañ trop incha allah naa fexe lu ma mën pour indi leen ay secret te xam naa semaine bi yëpp si wàllu secret yooyu noonu laa leen indil tey nag bii laa leen andil bi ngeen gis seen écran bi nii ndaxte kànnaar la waaye nag euh, kànnaar bu kii rek bu simple la rek. Euh, avant loolu damay wax ne man nekkuma sëriñ ñi nga xamante ne xamuñ ko moo waxaal leen ko nekkuma sëriñ parfois am ñu la woo foo nee nangam nangam fo ma mënti nekk nag bon ça dépend rek bu ma fi nit fekkee ñu dimbalante waaw may ne nekkuma sëriñ bu ma nit soxlaa nag ñu seet ñu dimbalante si soxlaam ma seet la ma sa mën ma def ko incha allah waaw kon secret bi nii ngeen gisee nii ngeen koy defee da ngeen ut euh, brin almet ak karnaar euh, su ko defee bo leen jëlee beneen ami bi da ko dugal si turu kanaar bi mais balaa nga si dugal nag da ngeen di ñaan seen soxla ñaan seen soxla seen diggante seen borom kër boobu wala seen diggante ki ngeen bëgganteel soo paree nag da nga koy tëj boo ko tëjee soo paree nga jël beneen almet bi donc nga jël euh, taalukaay nga taal beneen bi comme ni nga ko gisee noonu si si écran bi ba mu jeex noonu kese la bu ma kenn war dem ko laaj lu simple la noonu da ngay def da ngay jël tur boobu noonu ngay dugal beneen bi si ngay ñaan sa soxla ñaan ñaan ñaan li nga bëgg sa diggante kooku yëpp nga jël dugal ko si kii boobu pare balaa ngay taal tamit nga ñaanaat li nga li nga bëgg taal affaire bi euh, dem ba jeex loolu kese la amul leneen dégg ngeen euh, su ko defee incha allah li ngeen gis nii ñaari carré la waaye lii nag xam naa ñi nga xam ne jàng na alxuraan xam nañ suñ ma wooyee naa leen mën a envoyé waat kii bi ñu mën koo gis gis bu baax ndaxte lii day jafe expliqué waaw waaye kaare bi si kaw na da ngeen koy bind ngeen téye ko denc ko si yéen carré bi si suuf na da ngeen koy bind. Euh, case bu vide bu ngeen gis noonu si ngeen def turu nit ki ak turu yaayam ki ngeen bëgg mu ñëw si yéen wala ki ngeen bëgg nekk moom si jàmm li soo paree da nga koy baxal ngay def zikr bi astaghfirullah téeméer salaatul a téeméer yaa suqbidu yaa mujiiru nga def ko mille cent mille cent soixante nga def wala xadaamat bi wa muhammad biha mille cent soixante et un nga tëj su ko defee nag bii nii moom tam beneen mbir la boo xam ne day neexal diggante moo xam sëy moo xam ñaar ñi nga xam ne bi te bëggante te bëgg seen diggante sey am si maanaam daal day dox si defar diggante léegi lii ni nga ko gisee ni ngeen koy bindee kamaatara euh, numéro bi fi mu nekk noonu nekkul dara maanaam dañ ko tëjee alaamu salaam ala sayyidina Muhammad salim fi ngeen gis mu vidde fi ngeen bind sa tur yow mu bëgg sa tur ne si kaw ki nga bëgg na turam ne si suuf soo paree nga lem ko ba mu baax nga ut butéelu verre comme butéel bii nga gis butéelu verre bi nag da ngay jël suuf bu set bu sell nga def ko ci butéel verre bu butéel bi digg dégg nga su ko defee nag soo paree nga jël téere bi nga xam ne moom nga bindoon noonu def ko si biir butéel bi ba pare nga jëlaat suuf encore defaat si mais nag suuf si du fees du fees butéel bi waaw suuf su set lay doon comme nii moom du fees butéel bi butéel bi da ngay bàyyi espace foofu nga tëj butéel bi soo paree na nga jël butéel boobu dem ba géej nga sànni ko fa dégg nga noonu kese la amul leneen dem ba géej digg géej. dem bu fu taxaw nag kii nga sànni ko mu dem ba si biir biir incha allah butéelu verre nag lay doon lu nekk yeneen butéel butéelu verre yi moom lay nekk bu ngeen dugalee bu ngeen si defee suuf ba mu digg ngeen def si téere bi defaat si suuf ba muy waaj a fees ngeen tëj dem ba digg géej ngeen sànni ko foofu yaa ngeen incha allahu rabbi ah, diggante boobu lañ si bëgg den si am. comme ni ma leen ko waxee rek fii ba semaine bu soobee yàlla naa fexe di leen indil genre yooyu ndaxte nit ñi. co sonn buñ sonn la surtout suñu mbokk jigéen ñi am neen ay jafe-jafe torop seen si yëngatu na góor ñi daal li yàlla xam te war ngeen góorgóor ngeen muñal seen jabar yi war ngeen góorgóor bu baax waaw jigéen kenn du ko toroxal góorgóor leen bu baax ngeen góorgóorlu jàppale seen soxna yi soxna yi itam dimbale seen borom kër yi te ngeen muñ sëy neexut waaye ngeen muñ rek yàlla baax na leneen lu ci topp nag mooy mm, niñ koy waxee sax ñi nga xamante ni yenn saa yi dañ ñaan am nañu fiy ñëw di jël ay secret def na ko su noonu fii moom ñun ñaan li ñaan bu bari képp kii def na ko su noonu itam yàlla du ko nangu loolu moom amul sax ay demal ma ñëw waaw kon nag maa ngi ñëwaat si wàllu kii bi eh, nu tuddati wàllu kànnaar bi nii la kanaar yi na ngeen ut bii xam naa ne bii moom dana jafe waaye du ñàkk dana am waaw bu ngeen ko amul ngeen jël yële waaye yële nag fexe leen ba ngeen ki dugal fi ñuy fi caabi bi ne bu ngeen di dugal brin bi wax li ngay wax soo paree nga taal ko dégg fii moom wax rek la ñaan rek la ñaan moom di ko man bu ma kenn laaj li ñuy li ñuy ñaan li nga bëgg yaa ko xam ñaan ko fa rek dégg nga soo paree nga jël beneen almet bi def ko fa bu da ngay wax si beneen almet bi soo paree tëfli si beneen almet bi nga def ko fa nga taal bu kii nga jël kii bi denc fenn kon maa ngi leen jox dig daje ba suba ak jàmm السلام عليكم ورحمة الله